UCAB FM li gën a ci yéen kay Papa Saer Mbaye bis simila parti politique yi ak jafe-jafe yi ñu ngi koy jànkoon te daanaka yéenekaay yu bëri kenn ku ci ne xëy nga ak na nga cee nettali sunu naataango yi di le quotidien ñoom ña nga del si ne kon sampoon nañu leen te kilifa yi nga ne ko ñoo ko doon saytu ne nag liste yi baaxul am na gàllankoor ba tax munta bokk si jongante yéenekaay bi xëy tëgg ko di ñu xamal nag liste nga xam ne kon moom la nu fanq ngir ñu mën a bokk ci wàllu jongante yi loolu nag indi na coow dëggantaan bokk na ci liste nga xam ne kon coalition Yewwi Askan Wi ñoom ci boppam nag gàntal nañu ko ca Mbuur ci Golf Sud ca Sam Notaire ca Kédougou ak yeneen i gox yoo xam ne kon nee nañ ñun duñu bokk ci wàllu ko jongante yéenekaay bi xëy duñu xamal ne loolu la ñuy wax forclusion maanaam daal waxtu nga xam ne ko moom la leen soxla woon ñoom egsi wuñu la leen daal yéenekaay bi di enquête xëy diñu xamal nag ne jamono ji kay jafe-jafe dëggantaan la nga xam ne kon ñoom lañu gàntal lii di seen ay liste su naataango yi diñu xamal ne liste yi lañu koy defaree ndax ñoom dañu koo xamul wala boo ko dafa am benn dëgg sërëx bu ca ne sunu naataango yi ñoo xëy duñu xamal nakay luñ ci mën di nemmeeku lii lu jafee xam ak lijjanti lool ba tey ay sunu naataango yi ñu ngi ciy dellusiwaat ci wàllu jafe-jafe yooyu nga xam ne kon indi na fitna ñenn ci làngu politique yi ba kenn ku ci ne yaa ngi xool naka ngay def ba lijjanti sa bopp ci fànn yi yéenekaay bi xëy du a xool jafe-jafe yi nga xam ne kon moom lañ ci jot a nemmeeku lu jëm ci wàllu ko xëy du ñu xamal ne bëri na ci gox yoo xam ne kon ñi nga xam ne kon ñoom lañu joxoon seen ay liste ñoom ñoo leen war ndax bëri na si ñoo xam ne kon dañ leen a joxoon ay liste ngir ñu yóbbu ko waaye dañoo xaar ba waxtu romb ñuy doog a feeñ ndax dañu nëbbutu ji woon ak liste ya ñi leen ko jox amuñ ci woon benn pexe yéenekaay bi xëy di ñu xamal ne pexe ma kay waa coalition Benno Bokk Yaakaar ak ñi nga xam ne ko ñoom ñoo di waa Yewwi Askan Wi kenn ku ci mbir mi dal yaa ngay wut ay pexe Yewwi Askan Wi ñoom nee na luñ ci mën a nemee ko yoon rek mooy la koy lijjanti képp koo xam ne kon tudd nañ la ci mbir mi nga def leen jëf ju ni mel loolee doon nag lu danañ ko lijjanti ci kanam yoon yéenekaay bi xëy duñu xamal nag ne jamono ji làngu politique yi ña ngay xool naka lañ ma def mën ko lijjanti coalition Yewwi Askan Wi yéenekaay bi mi ngi ñu xamal ne jamono ji nag yi ak dal xaw nañu ko nemmeeku l'observateur yéeni kaay moo xëy dañu ko nemmeekul diñu xamal nag ne ginnaaw bu ñu xoolee lu jëm ci wàllu ko dossier yi nga xam ne kon jot ko ci yóbbu woon a xoolaat ndax bëri na ci yoo xam ne kon yow askan wi ko ca waxtu waaye tam lu jëm ci wàllu liste yoo xam ne kon naam teew nañu ca waxtu waaye nag dafa am ay des yoo xam ne kon am na ca ba tax mënuñoo bokk jongante Sud Quotidien yéen kaay moo xëy lu ñu ci defal ak càmbar Kédougou yéen kaay mi ñu xamal ne liste bi nga xam ne kon Moustapha Guirassy moom moo nekkoon ca boobax boobe dañu koo gàntal fi nga xam ne kon moom moo jëm ci fànn woolu yéen kaay bi dañu xamal ne luñ ci mën di nemmeeku am nag leen lu umpale na ko leen li daanaka dañu ko sobenteloon am na ci yeneen yoo xam ne kon ñàkk ñor ci wàllum politique bi bokk na ci li nga xam ne kon moo leen ko so yóbbee am na ne kon wàllum sabotage dafa am ñeneen ñoo xam ne kon war nanu leen yéen kaay bi xëy duñu ne kon ñoom ñoo koy saytu ñoom itam joxoon nañ leen ca baaraam ku ci mel ne préfet wax yéen kaay bi xëy duñu xamal ne ci gàttal wax ne jafe-jafe yi nga xam ne kon moom lañu nemmeeku ci wàllum liste yi doon na lu indi lool fitna coalition yi rawatina ñi nekk ci kujje politique yi yéen kaay bi di source ah ba tey ma nga ca di ñu xamal nag ne métti na lool lii nga xam ne kon moo dal ñenn si ñi nga xam kon ñoo nekk ci kujje politique liste yi nga xam kon moom la ne di jàmmi Sénégal ci virub Ndakaaru bi ñoom ñëpp li nga xam kon seen yéene du mën a sotti ndax danoo dàq seen ay liste yéeni kaay bi xëy di xamal ne loolee moo dal taxawu Sénégal ca Gorée waaye tam li nga xam moom di gëm sa bopp ca Ndar yéeni kaay bi ba tey di xamal ne yamul foofu liste Yewwi Askan Wi bi nga xam ne kon eh, ca Foundiougne dañu ko faa dàq mënu caa bokk Vox Populi yéene kaay ba tey ma nga ca dinu xamal ne liste bi nga xam kon gëm sa bopp moom moo ko déposé woon ci njiital kii di Bougane Gueye Dany Ndakaaru eh, foofu itam jamono ji dàq ko yéene kaay bii di Vox Populi yéene kaay moo xëy dinu xamal ne eh, ki nga xam kon moom moo di préfet bu Ndakaaru joxoñ nañ ko ne jamono ñoom nee nañ taxaw tem lii duñu ko bàyyi mu jàll faw danoon def ab recours maanaam daal kalaame ji loole ngir ñu mën ko xoolaat Bougane Gueye Dany génn nañ yéen a kaay xëy di ko nettali a bi di ñu xamal ne kon a njiital des médias yéen a kaay bi nee na nag toll daanaka mbir mi ay pexe noonu dong la xëyoon ki jamono ji dañ ko a a kon moom mooy jëm ci wàllu orchestre national bi nga xam kon jamono ji ma ñu nettali ay jaar jaaram ci jamono yi Abdou Diouf ba ci fi nga xam kon fi lañu toll nii yéen yéenekaay bi xëy di nu faasi nag lu jëm ci wàllu ko taxawaay bu ma ngi ko cay taxaw eMédia point sn moom mag ñuy waxal ka kañ goo xam ne kon ñu ngi koy kañ ñi nga xam ne kon ñoom ñoo di takk deri réewum Sénégal doon soldat si nga xam ne kon waa MINUSMA ñoom ñoo leen jiite foofee nga xam ne kon moom moo di ca Mali yéenekaay bi xëy di nu xamal ki nga xam ne kon moom moo di El Gassim Wane mi nga xam ne kon moom mooy njiit la moom nag mi ngi rafetlu lool taxawaay bi nga xam ne kon takk deri Sénégal yi ca uh, foofee ca Mali def nañu ko ca rawatina fu ci mel ne Ouagadougou Douentza ak fii di Sévaré yéenekaay bi dina xamal ne ñoom taxaw nañu taxaw boo xam ne kon bu mucc ayib la bari na ci kon ñoo xam ne kon nekkoon na ci njàqari jamono ji ña ngay fabu di dellusiwaat seen dëkk yi ginnaaw fitna joo xam ne kon nekkoon nañu ko fa soldaaru Sénégal si ñoom ñoo leen taxaw di leen gunge waaye tam jàppandal lool lu jëm ci seen wàllu kan nekkin yéenekaay bi moo xëy nu ko nettali sunu naataangoo yi di IGFM point sn ñoom ba tey dellusiwaat nañ ci wàllu ko jongante local yi di nu xamal nag ne lu jëm ci wàllu ko jongante yi nga xam ne kon moom la ñu ca doon amal fi mu toll nii li nga xam ne kon moom moo di euh, caution bi nga xam ne kon joxe nañu ko ca bu ñu koy xool liste yi nga xam ne kon ñoom ñëpp amoon nañu yéene bokk ci jongante yi bu ñu xool koppar lañ ci dugal euh, ci caisse de dépôt et de consignation toll na ci euh, milliards ak ñetti téeméer ak ñaar fukki millions yoo xam ne kon jot nañu koo dugal mu doon ay caution yéenekaay bi xëy diñu ko fàttaliwaatal diñu xamal ne caution bi nga xam ne kon moom la doon laaj mooy liste bu bëgg nu bokk ci wàllu signation jot nañu toll si juróom benn fukk ak juróom-ñaar ci ay coalition ak wala parti yoo xam ne kon déposé nañ seen ay constitution ngir nag laaj na nag lu si ñaar fukk ak benn yoo xam ne kon ñoom ay département wala ville lañ doon laajte ci biir réewum Sénégal yéen kaay bi ne lépp bu ñu ko boole kon ay juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ci ay bokk moomeel yoo xam ne kon jamono ji bokk na ci xëccoo bi lépp lépp kon mu ngi toll ci milliards ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ci ay milliards yoo xam ne kon jamono ji jot nañ ko ci ay xaalis yéen kaay bi nag dina fàtte nag ne luñ ci mën nembeeku xaalis boobee nga xam ne kon moom la nu joxe ne kon ñoom ñoo ko fa joxe nag bay boo nag ñeen rek nanu waajal nga xam kon ñoo ci mën a jotaat seen xaalis mooy ginnaaw bu ñu jogantee ba pare fukki fan ak juróom ca ginnaaw xam ne kon moom mooy résultat yu wér yi jeex na tàkk képp koo xam ne kon daanaka foo bindu fu ne am nga fa lu mu néew ne benn conseiller yow da ni si nag daanaka ci benn commune dong nga nekkoon lu mu néew néew laaj nañ la fa lu toll si juróomi conseil lu nu may ñàkk nga sab xaalis yéeni kaay bi nag xëy du ñu xamal ne loolee ñu laaj ci ko département waaye daanaka commune yi itam lu ñu mel noonu la ñu fay doxal yéenekaay bi xëy di ñu xamal nag ne jamono ji li nga xam kon moom mooy jëm ci fànn woowu li ñii di kilifa yi nag kenn ku ci ne yaa nga ciy bàyyi xel lu jëm ci wàllu jàngoro ji di coronavirus la ñu koy jeexal yéenekaay bi Dakaractu point com ma nga ca mbas mi di ñu xamal ne gaaw tey bi juróom-benn fan ci weeru novembre atum 2021 Sénégal gépp ñaari nit la ñu gis ñoom doomu jàngoro ji am na ñett ñu ko amoon wér nañu du kenn koo xam ne ko lim nañu ko tey mu wàcc ca liggéey docteur jamono ji ci réew mi yëpp fukk ak ñetti nit doon tiim di leen ca faj am na ñett ñoo xam ne ña nga soytaas mbokk yi ne kaay ngoog dig daje ëllëg incha allah. UCAB li gën a ci yéen kaay yi. Papa Saer Mbaye.